sa première sortie macha allah nga finaalu daa mel ni xel dal na. waaw sant yàlla rek dañuy liggéey rek ay xale lañ ko wax. Mhm. ci lan nga nekkoon bi moment bi nga xamante ne nee nañ tëj nañ activité benn sport amatul. nekk si entraînement yi nekk sama bopp rek yàlla xam na ko nekk si entraînement yi nekk sama bopp rek loolu kese la. damaa gisaat beneen façon bëre ci yow muy concentré wu jox adversaire yi cër don yaa leen ëpp doole nga jox leen cër loolu lan la. waa dafa am lu ñu dal daaw. dafa am lu ñu dal dal daaw. lan la woon ñu xam lu ñu ko perte woon quoi. lan la woon non xam nañ ko secret ba ñu dañ ko rek mais liggéey nañ quoi nañ bàyyi rek affaire ba ma ko neex sax pongal wàcc yàlla xam na ko tey bëgguma billaay kontaan ma kon ma gënoon kontaan pongal wàcc ngeen xool. suba stade Iba Mar Diop. suba am na dama ne yéen laa jox rendez-vous incha allah suba dama leen jox rendez-vous Iba Mar Diop incha allah daa jëf jiina. mbër naka bu naka bu. ça mu mel ni sa première sortie nga finalu xel dal na de. waaw waaw est moom lépp jàmm. Ah. waaw. man moom xel gën naa waaw waaw. Ah. diggante bi ñu tëjee saison bi ak léegi ci lan nga nekk. déggu diggante bi ñu tëjee saison bi làmb amul ak léegi ba ci lan nga nekk. de si entraînement yi rek. barke yàlla si entraînement rek laa nekkoon. ñaata séance nga doon man maa ngi si ñaari séance chaque jour. parce que dañu ñëw gis compétition bi lu muy gën di dem ngay gën di yokku confiance ngay gën di wane sa bopp ngay gën di am doole. sëñ bi nag sama olof daa xaw a setul dara. billaahi mi daal chaque jour daal ma revient à trois deux séances ñu ñaan léegi ne. waaw séance léegi séance yi rek mu waaw waaw. final bi noo ko fas yéene def. première bi première combat ne fi tan ma rek mbiit ka final felanga roog waaw. kii de waa Jaxaaw maxey ñaanana den rek to deka den xa ɓay refo ndeɓanong kam den waaw jéegim ba jéegim seen ajala ngaw jaxaw waaw waaw merci beaucoup taxaw ndaysaan Abdoulaye Ngom ñu gën ko xam ci Simbo Kama moom lay wuyoo ak fils de Batlen Mamadou Moustapha Sall <laughs> ndaysaan ñoom ñaari mbëri na daa mel ni tirage nañ Abdoulaye Ngom moo gañe arbitre bi ree na xaw ma lu mbëri waxante ñoom ñaar ñu ngi noonu Simbo Kama ak Fils de Batlen Simbo Kama moo leen won ginnaaw Fils de Batlen ngeen jàkkaar lool mbokk yi ñu ngi noonu ci finaal bi ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu Ablaye Ngom Simbo ak Fils de Batlen Sikki ndaysaan ñoom ñaar ngi noonu ñu ngi leewaatoo ñu ngi tey fii ci terrain Gaal gi final poids lourd baa ngi noonu dox ci diggante Ablaye Singo ndaysaan gis nga Fils de Batane bu ma wax na ko génn na da koo bëgg a jëli génn nañ saako yi Fils de Batane da na dama doole def leen ndànk Fils de Batane est loolu dina la ci génne ndaysaan si mbokkama ak Fils de Batane sikki ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu arbitre bi sifflé waat na Simbo Kama Fils de Batlen sikki ndaysaan Fils de Batlen jëli na ko Simbo bañ na mu ngi koy pàqat Simbo bañ na ndànk ñoom ñaari xale yi dinañ laale ndaysaan bëre xale way xale waaye reporté tamit xale <laughs> waaw waaw ndaysaan déedéet ñaari xale yaa ngi noonu Ndeysaan mu ngi noonu Simbo Kama Simbo Kama ak Fils de Batlen Ndeysaan dégg ngeen ko noonu gaa yoo ngi annoncé suba Ndeysaan Fils de Batlen ak Simbo Kama plaqué na ko fa mu koy yegg sori na Ndeysaan fa mu koy doole doxul jàmm Fils de Batléne mi macha allah xaw ma kañ waaye ji ni mu dugg see ci làmb décidé na ndaysaan Simbo Kama ak Fils de Batléne Siki ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu ñoom ñaara ngi noonu ba tey Simbo moytul door na tànk Fils de Batlan bañ na dooraat na tànk fàqat na ko Maadou da koo nar a daan Fils de Batlan da nga koy ëñ Simbo bañ na <laughs> waaye xale yaa ngay bëre lii laa man xale yaa ngi wane seen bopp bu rafet ndaysaan Simbo Gama ak Fils de Batlan cey lii moo tax ñu ne wolof ne lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole waaye bëre bu mbër yëngoo rek la ko yëngal ko ëpp doole Simbo Kama ak Fils de Batlen Siki ñoom ñaar a ngi noonu Simbo Kama Fils de Batlen ndaysaan Simbo mu ngi koy gën a jege da koo bëgg a génnee Fils de Batlen defal ndànk ndaysaan defal ndànk Yinga da maytul maytul fam la yegg sori na doole doole mbot mbot génn nañ saako maytul Fils de Batlen ak Simbo ndaysaan yu xoo nañ ndaysaan Simbo day jël deuxième avertissement day jël deuxième avertissement ndaysaan Simbo Kama ak Fils de Batla Siki ñu ngi ci final poids lourd bi fii ci terrain gaal gi ndaysaan mu nekk samedi le 2 novembre de wala septembre ci yàlla waa man mi la mooma dal le 2 octobre 2021 ndaysaan ñu ngi fii ci terrain gaal gi góor production moo ñu fi woo mise bi un million la ñaari xale yi ñoo finalu Simbo Kama ak Fils de Batlen Siki may bëggee ñëpp waa mbëri fi nekkoon bari na Pape a ngi fi woon Fils de Batlen a ngi fi woon Albarka Kayre mu ngi fi woon yeneen ndaanaan yee ngi fi woon Franc ñëw na waaye dañ koo disqualifié ndax dañ koo woo ñetti yoon mu tardé loolooy làmb ndeysaan looloo tax làmb ngi nii ñoom ñaar ñoo finaalu Fils de Batlen nee na ay ponkal laa soxla woon bu ñu nee ponkal xel day dem ci général Malika bu ñu nee ponkal xel day dem ci Serigne Ndiaye numéro 2 bu ñu nee ponkal xel day dem ci Émine François Gomis buñ ne ponkal xel day dem ci xale bi nga xamante ne mooy Doudou Sané buñ ne ponkal xel day dem ci seex Tidiane Niang yaakaar naa compétition bu am xale yooyu wane seen bopp lamba ngi nii ñëw nga ci loo namoon de ñëw nga ci loo namoon maa la wax lii dama nam bu doon raf raf ñaari nit bokk ci géew di xeex ak alaane. <laughs> yàlla bu ñu dem ardo ñu ngi toll ci final poids lourd bi arbitre bi sifflé waat na. Fils de Batlen ngeen jàkkaarloo Simbo Kama moo la woon ginnaaw. ñoom ñaari xale yi ñu noonu ci compétition finale bi ndeysaan fii ci terrain gi góor production moo ñu fi woo mise bi un million la xale yaa ngi noonu te bat leen ci làmb ji loolu ak làmb ñoo ànd ndeysaan ñu noonu ndaysaan Fils de Batling ak Zimbo plaqué na ko Fils de Batling da koy génnee saako yi génn na bu dee am na deux avertissement disqualifié nañ ko wala déet am na deux am na deux ndaysaan Fils de Batling ak Zimbo Kama ñoom ñaar sonn nañ pël compétition bi ku nekk wane na boppam da koo bëgg a daan da koy génne da koy génne da koy génne ñàkk na Fils de Batlen jël na compétition bi ci kaw Simbo Kama Fils de jël na ko Fils de jël na ko daan na ko